nomination bu euh, kii di Samba Ndiaye ginnaaw li nga xamante ne si nag pétition bi ak ñu bëri bokk ca parti bi Pastef sax nag di réclamer dañoo daal di wax a dàq nga xam ni moo di Samba ki nga xam ni moo di njiital parti bi di euh, Pastef di Ousmane Sonko moom nag daal na cee daal di addu wante it daal nay daal di xam ne sax nag déglu na rek li nga xamante ne si nag moo metti patriote yi ginnaaw li nga xamante ne si nag moo di boobule nomination ca publication ba mu def sax moom njiital parti boobu boobee sax di xamle sax ni que kontaan lool ci vigilance bi nga xamante ne si nag militant yi passé daan koy daal am. te loolee nag dafay daal di li nga xamante ne si moo di la maturité de notre démocratie interne wante it dara waralu ko lu dul rek fàttaliku rek lu métti yi nga xamante ne si souvenirs yu méttee métti yi nga xam ni ñoom nag dund nañ ko avant que rek ñu daal di egg li nga xamante ne si nag moo di ci pouvoir ba tax rek muy dalal seen xel di leen xamal ni lu métti loolee nag ñu dund souvenirs yooyee sax nag tey jii la gën a bees ci ñoom ba tax nag kenn ku nekk ca ñoom sax nag daan nay daal di bàyyi xel lu métti loolee sax nag ñoom ñu daal di dund. ba tey muy dalal seen xel yi di leen xamal ni que rek njiitareem di la président Bassirou Diomaye Faye dafa daal di jël boobu décision ginnaaw sax nag ab proposition bu ñenn ci ay alliés yi nga xamante ne si nag daan nañ koy dalde te moom sax nag mën na wax rek ne que xamul rek li nga xamante ne si nag moo di la connaissance des faits dénoncés. yemul ci loolee sax nag moom sax muy fàttali position historique bu boobu les partis wante it ba nga xamante ne si nag na la ba nga rek bëgg loolee nag daal di am succès wante la nga xamante si. yi nag ñoom mënuñu ko nangu mu képp bépp nit ba nga xam ne da nga daal di impliqué wu rek ci li nga xamante si nag moo di une gestion scandaleuse d'une responsabilité publique wala sax nag nga doon wane yenn haine wala sax nag yenn kàddu yu ñaaw yi jëmale ko rek ci parti bi wala sax ci seen ay leader wala membre ya nga xam ne dal nañuy daal di bokk ca boobu boobule parti loolee nag duñu ko nangu ba tax nag euh, muy li ni ci mbirum kookee nag di Samba Ndiaye dinañ ci daal di jël ay mesures correctives jëmm ci mbir yooyee nag ci ne mu gën a gaawe wante di fàttali ñi nga xam ne ñoo di militants yi ak sympathisants yi di leen wax ne rek 48 heures rek moo des ci li nga xamante ne si nag moo di campagne électorale ñu daal di koy tàmbale ci moom loolee sax nag waxal muy sàkk ci ñoom ñu daal di mobiliser wu wante it ngir rek mën a daal di garanti li nga xamante ne si nag moo di une victoire éclatante et une majorité écrasante au soir du 17 novembre 2024